see dafa xaw a muu lool par rapport ak ni nga fi doon dugg see. ah non xam nga rek xam nga xam nga muu gii moom foog comme ndax Sénégal moom muu. waay waay waaw moom muu. waaw loolu la te kam nga boo ñëw seet si sa mbokk euh, séeréer moom. Hmm. wóorul ngay te calax calax dugg xam nga yéen ay jinne ngeen. waaw oh, dégg nga dégg <laughs> waaye lu ba ngeen nangoo doon euh, xam nga bu ñu mais ba tey daal daf ma daf may solal ba parfois ma ree ba sol maa koy nettali ko rek aana sax mooy euh, pël bi doon xaw ma séddale xaw ma tong-tong bi xaw ma la ah, ay gàmm ay gàmm yow gàmm doo fàtte de <laughs> gàmm yow garaaw nga de euh, kon yow sis sis sis pes tega loolu non loolu dafa doy waar ah loolu moom maa ngi doon naan su ma la gisee lu gàtt gàtt di ma ko mayaat ah mm-hmm. oh xam nga nag yéen séeréer da ngeen bëgg yàpp nag ah. kenn ku ne xam na ne yéen moom ah. ndawal mm-hmm. léegi nag mm-hmm. xam nga yéen comme yi ñooy seen gaa yi. non pël yi ñooy ñooy jaam yi waaw. rek nangu leen. leen mayee nag. Mhm. am sama benn mbokk pël rek. xam nga pël yi ñun dañ ngand dañ dijj dañ mën a maye nag. Mhm. daal di maye benn ngandamal maami nag nag bi boo xoolee nag bi mën na ay quatorze tonnes. <laughs> dafa dijj de. Mhm. Ah, ah ah ñun léegi may nañ ko séeréer séeréer yi dégg lool rek mhm. daal di départ wuti penc am benn séeréer boo xam da doon sangu mhm. dégg ñu ne may na naaj bi ci penc bi lu waay dagg yaa moom kenn du fay kenn du jënd kenn du def dal séeréer bi ni boole rek daal di tëll rek dugg si néegam rek sol benn simis allah di waaye simis yu yu oyof yooyu gën a am ndaw yi kese kese <laughs> kese rek départ di didau na ih nak bidana je hui ai nak banga je hui ai nak banga je didau bo yegas na fek nak fes del gaay wor ko di tag sawaay kool kool kamu ne mu dugal bopp bi gaay yi dañu bari doole waaw dugal bopp bi gaay génne boppam mu dugal tànk bi gaay génne tànk mu nii ku dof dof fii doo am dara buug rek dugg commencé di tànk waaw nag bi di tànk tefeer tefeer di tànk affaire bi dooyu ko rek mu ŋarale waaye ci nag bi. Uh-huh. toog ci nag bi kon lu waay dagg yaa <laughs> kay mu profité. di dagg di dagg da nga am na beneen waay boo xam ne. Uh-huh. dégg na affaire. rek uh-huh. mun na ay quarante mètres. bu ëppee ma wàññi. non mun nga wàññi kay. ah waay dix mètres baax na. non quarante cinq centimètres rek. ah waaw dafa am mu ne meew de. <laughs> Ah, moom. <laughs> kàcc rek laay def. bëri kay moom macha allah. après on est dix centimètres noonu. loola loola loola daaw rek wuti nag. ñëw mhm. ba dugg mënul dugg mu duggal tànk bi mënul tànk. Mhm. fekk sawaay moom ŋaral na la ci nag. ah sawaay ni na. doo mhm. am ci yàppam. kaara mu duggal sama jaas bi rek lu mu am ma jël. dafa ni boo kee jaas. roof. dégg nga roof naka ci waay. borom sëmi ci alaaji. waaw léegi tout lele rek dal taxo da ni alhamdullilah ya rabbil alamin bax yaay ni forno doko ngata waje lan len sa way jek be ak deglu saf affaire yi tok rek muni bo rek tepp tu bay da ni eh? taxaw li gay taxaw muni eh, ku muji tak way ni ko ma muji tak muni ko lo tak muni ko res <laughs> ya ñema yalla res dina am karaw <laughs> Perdona, el puño de mira, tío, me me hablo. Hola, yo, yo, yo, tío, interesante. Bueno, interesante, muy acá, eso sí, interesante. Muy interesante. Hola, yo. Los cocinas, yo, entre el polo exterior. Wow. La femme solo. Wow. Ndaje, regulateur de société là. aareegu ah, maanaam luy luy luy régler suñu suñu dundin ah. euh, da see bokk boo gisee ay guerre civile yooyu lu tax mënut a mm. euh, mooy lii ah. xam nga pël bi bu ñëwee solal séeréer bi séeréer bi ñëw por por doy na waar doy na waar ñu duggante daal ñu daaw ñu baax ngeen ay jaam ngeen mais jaam yu baax ngeen eh, voilà jaam ñun duna jaam yen yéen ay jaam yéen ay jaam ah mais yéen ay jaam yi parce que d'après mythe bi ay frère la ñu woon yu doon voyagé xaw ma waaw kenn ki xiif kenn ki dagg si poojam jox ko waaw moo tax fi mu nekk nii. su ma tànn ki daggoon poojam la pël la. non bi moo dagg. non non moo dagg pooj bi. waaw ba tey fekk nii. ah bon waaw en ku mus a tàngal sa morom xolam daal da koy gis. waaw lool moom am voilà. entre pol séeréer. Mm-hmm. tëgg. Mm-hmm. ay yooyu. joola joolaa bu kenn di ay meral sa morom. dëgg la dëgg mun na la sax rey bi eh, non dëgg la baaxul dëgg la mais Casamance ba muy métti trop trop trop trop waaw buñ la mosoon jàpp les rebelles waaw nga nekk séeréer waaw dañ lay bàyyi dañ lay bàyyi ñu kool ngay pël waaw ñu bàyyi a ak yéen ak jome yooyu waaw ñu ne lakkal joolaa nga def joolaa ñu ne avance mhm. kon da ngay da ngay génn ni nag xam nga lu ma bëggoon mhm. wax ji neex na affaire mais xam nga lu a indi mhm. sama rek maay hmm? dee nañ yëpp dee hmm? xaw lu leen rey la man xaw ma dama jaawale def ngooñ posen xaw mhm. ma dama jaawale ripaas ay yooyu xaw ma lan la daal hmm? mais daal yëpp jékki-jékki dee te xam nga fi mu toll nii daral bii dañu ko ti mhm. ràpp lañu ko def hmm? nit duggul nit génn mhm. joon nag léegi nag affaire bi indi na ma ay conscientisation ma ne comme yow yàlla dogal na ni nekka nga sunu jaam nga waaye eh, buur waaye mm-hmm. te yàlla mooy na ngay dem ay foofu noonu di tukki traverse si di mm-hmm. yàlla defal na la affaire mm-hmm. maa naa ñëw wax la ko pour mu mën ma defal mu dimbal ma ah lu ma mën a bu ma mënee jëndaat sax ay trois un nag deux nag trois nag ma di yaraat pour ma mën a amaat gétt daal ñaa la ko loolu loolu nga di Hmm, mesti nak lah kain bila. Sama boki dan joy, joy, joy. Mesti nak, mesti nak bila. Mereka, orang jinak ada timbal. dina la dimbalé ndax yow mom sama way nga mais dafa am histoire bo xamné da fay yag dina peul yi ñoy jam ñi naan séré ñoy jam té nak jot nañu léral ko quoi hein waaw waaw lool mom déggal am waaw dafa wara lér nak dafa kan moy jam carrément voilà parce que man lima japp euh nous les séré moy ñun ñoy bouli dëgg yow loolu dama bëgg nga leeral ko sa mbokk yi xam ko xam ne yéenay jaam ñu ñëw leen moom moo taxoon ñu leen doon jàpp di leen ñaas di leen marqué ay onze ay affaire yooyu onze yi waaw ah. ñun ñoo doon signé parce que sa alal da nga siy da nga siy da nga siy marqué sa empreinte ah. voilà moo taxoon ñu doon ñaas seen ah, maam ngeen kàmmikaay ay kàmmikaay la naa la dimbale naa la jox xaalis nga mën a liggéey defaraat say kii mais dama bëgg nga leeral loolu ma filmé ko ñu tas ko si réseaux sociaux bi nga pël yëpp xam ne séeréer yi ñooy buur hmm. loolu daal bu fekkee ça te va bon après bon <coughs> ma defal a chèque nga dem retiré ko jëndaat say nag quoi léegi préparé loolu ma defal la vidéo nga leeral loolu. waaw xam nga man nangu naa nangu ñu leeral. Mm-hmm. kan mooy euh, jaam bi ak ki nekkul jaam. Mm-hmm. waaye nag affaire film yi nga ma ci man moo ma ci jàkka. a ah, mais il faut mu leer parce que preuve à man preuve laa bëgg. dama ah. bëgg loo xam ne bu ñu fa jógee ñu tas ko mu leer quoi une bonne fois pour tout. xam nga nag man pël man pol nanndit la pol dijji la e man eh, kilifa la nda ko tolni man en tant que ardu nga xam ne man nii la ñuy wax ndeysaan man la sama baay sàmm jox ma ma sàmm jox sama rak sama rak sàmm jox rakkam rakkam sàmm jox rakkaati rakkam rakkaati rakkam sàmm jox rakkaataati rakkam rakkaataati rakkam jooju sàmm jox rakkaataati rakkam

ñun pël yi séeréer yi ñun ñooy seen jaam ñun pël yi ñooy jaamu séeréer yi dafa mm-hmm. war kere kere nit mm-hmm. waaw ñun ñooy seen jaam tey ñun ñooy seen jaam ëllëg yéen yéen a ñuy jàpp yéen yéen a ñuy toppatoo mm-hmm. yéen a mun ci nen dara ñun duñu tus xamuñu duñu ree duñu dara yéen daal séeréer daal yéenay dal daal yéenay ganday daal waaw. merci ah, beaucoup waaw yéenay yi waaw merci am na leer. waay leer waaw léegi on est le 25 tay waaw bon pratiquement weer bi dee waaw ah. voilà fii le 25 fii le 30 rek yow bo fi jaaree inshallah allah luma la préparer comme ça que mu si jëndaat ay nak euh, am si géniteur yu bax nak cette fois ci mun a liggéey quoi franchement d'accord fi fii la. euh, bon le premier danaka dans 4 jours rek mën nga ñëw bu la wara bu la wara def lu ngay def ni légui rek ma dem bu mu génn fi ma def dara eh bien du mo sori krawul dama fi 4 jours gëñaw tanké amul problème ju aw li nga mo wax lo fi krawul nako topoto nako topoto tanké No, sama jam gue nak foto foto amal peralat. Kiat lah, gue kiat. Hmm? Gue kiat lah, apa nanti? Fimne kayak kau mienai jam ni. Gina lo foto foto. naa la jëndal ay kii yu baax ah franchement waaye vraiment. waaw hmm. jërëjëf. il est intéressant quoi. <laughs> ah wóyee ma Diouf Diouf damaa lu ma fàtte. waaw. affaire ah, bi doo ko doo ko supprimer rek bala 25. lan la. kii non mais léegi la lu lu lu kii. Euh, garaawul gars yi laa koy jox. le 25 après ñu prix. t'inquiète Bamba laa koy jox mu dugal ko si site bi et après bof bon na leeral pour le moment quoi mais yow t'inquiète yow li ma defal nii non man du ma baax loola tamit séeréer la lu nekk am na njëgam lii dinaa la fay incha allah dinaa la jëndal ay nag yu baax. d'accord mënoon nga ko supprimer boole woon cinq. garaawul garaawul. jaajëf waay ah. yóbbu la gëstu nga ma de. parce que lii dama yàggoon bëgg mu leer ah. pël yi amee nañ ni ñi quoi.